salaamaaleykum euh, ñu dalaatal leen ak jàmm ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, seen émission préférée di ça fait partie de la vie comme niñ ko defee woon ak yenn semaine passée noonu la ñuy defaate ak yéen tey continuer ci li nga xam ne moom mooy thème di le mariage yaa joojo njëkkee goro mooy lan ci sëy njëkke ak goro xorom la ci sëy ndax olof ñun olof yi dañuy wax ne bu bu njëkkee gërëmul goro gërëmul ku gërëm féministe nga léeg-léeg nga gis sax jeeg nekk ci famille doon fa kaani xeeñu cuqale bi hmm. te société bi li koy taxawal li nga xamante ni moo ko taxawal nit ñi di ko war a dundee ñuy war a séq teraanga di yërëmante di dimbalante mooy hmm. lii ñuy wax ni muy sëy diggante góor ak jigéen loolu su baaxee lépp baax na su yàqu lépp yàqu jigéen teraanga ji ko yàlla may ci moom rek la xaj góor daraja yàlla yàlla ji ko ji ko yàlla may moom rek moo ko àttan kon ku ci nekk bul jaawale li nga am lu la jëndalee tey faqastalu sax ba jëndal la or maire bi woo la ba la ñëw ne la ana sama bos man loolu dama koo gis dama ko dund dama gis koo xamante ni mm. jëkkër ji da ko jëndal lam te goro bi du amul 70 ans dina ma jaaxal mm-hmm. mu woo doom ji ba mu ñëw ne ko sama lam bi nga jëndal diw laa bëgg nga jëndal ma xale bu jigéen boo gisoon démb mu jekk jongama nga bëgg ko lool boo boo ko gisee da koy bëgg te juróo ko tey xale bu jigéen boobu tey ji sëy bu bu tànkee ndox bu la joxee doo naan ndax maltraitance maanaam souffrance jigéen hôpital boo dem ku fa am goitre koo gis ku ne bu laajte jigéen la lu ko ko fa teg sëy xam nga ndax lan ñun jigéen dafa am lu ñu teg sunu kaw muñal nit ña ndey ma bàyyam ñàkkee ndogal. Mm. sa sa baay noonu ñàkkee ndogal. ci sa soxna maa ngi ñëw da man dama wax ngi yéen ñëpp mais moo développé man sama day gàtt nga développé sax nag may ko mu développé demal. Adja may leen ko mu développé demal prince prince demal di ngay wax lu am solo la demal. non da ngeen. c'est des deux côtés dafa war a ni c'est des deux côtés am goro. merci ko fii. kii ñoo doom ko ay yooyu gis naa sëy bu yàggul bu tas koo xam ne xam naa ko bu baax jëkkëram da ko jàpp ñaari yoon mu koy sëriñtu mu ne ko su mu la jàppatee dama lay fase ndaw ci dem ci benn sëriñ. kooku tam na koo fase doomu di. di liggéey non non non da ko jàpp mu ko su ma la jàppatee nga koy sëriñtu dinaa ndaw si dem ci benn sëriñ. dugg foofu ñibbi. sëriñ bi woo waa ji ne ko diw sa soxna léegi la fi jógee.